Sénégal taxawaloon ko ngir gën a ñoŋal dundu na askan wi ci wàllu yoon yu baax lii di éclairage public ak assainissement Promoville ab njàqare la mujjee jur foofee ca Rufisque 2 di ab gox bu nekk foofee ca commune bu Nord. tali bi moom waaw depuis 5 ans xaw ma six ans ba léegi mi fi mun ñu ko defar mu pare te loo xam ne même pas un kilomètre doy na waar daal. tali bi daal gars yi saboté nañ ko quoi liggéey bi ñu war a liggéey liggéeyuñ ko ñetti nit dañuy liggéey fukki nit toog comprendre canal gi nii rek pour ñu defar ko pour yegg problème la waaw parce que nag instant bi nekk état bi war nañ si dimbali bu baax laajoon naa gars yi fii liggéey ma ne lan moo tax liggéey bi arrêté mais dañ na ma ñëpp dañoo nekkaat ci terre bi quoi dañoo dem nekkaat ci terre bi liggéey quoi moo tax ñu arrêté woon liggéey bi après liggéey terre bi ba mu wàññeekoo def naa si lañ ñëwaat nekkaat ci liggéey bi quoi nawet moom dund fi dina doy waat trop trop parce que gis nga xoolee ndox bi nii sax canal gi day génn ba mooy loolu day dugg si koji ba pare koñi en plus ndox bi nekk si koñi pour bu ñëw dugg si canal yi problème la waaw liggéey bi daal doy na waa daal fii moom gaa yi ngi fi dund dund bu métti métti métti ñun daal sonn nañu nawet ñu man ñaari ati yàllaa ngi ni kër yi day fees bant yaa ngi di ñu bëgg bu ñu commencé tuuti liggéey arrêté commencé tuuti liggéey arrêté ñun sonn nañ jooytu nañ guddi jooytu nañ bëccëg ñun sonn nañu suñu xale amatuñu foofu tey ci suba dañoo ubbi canal bi ndox maa ngi nii wal fees del di barax baraxe amuñu fenn fu ñu jaar ñun dañuy dañoo sonn ñun daal ku ñu jàppale eggaleel ñu suñu tali bi dinañ sant yàlla dañuy commencé liggéey ba ci kanam arrêté wa li waral li ni mel nag du leen lu dul ay travaux yu teew a jeex tali ba waroon nekk deux voies benn voie ba rek la ñu taxawal te ab rang-rang la mujjee doon bu sukkandikoo ci askan wa sonu nañ ci gisoo oto yi dañuy dévier chaque instant du yoon ñun war nañu mën a defaral suñuy tali bi oto yi du fi jaar normal xale yi du si foo bu ñu wàccee dañuy am problème jégg pont bi gis nga fii démb rek am benn xale bu daanu fii si ndox bi xoolal ndox bee ngi nii. boo fi boo boo fi nekkee nawet da ngay sol plastique ba sonn plastique sax du la soutenir si nawet bi parce que xam nga fii ban la te day pàccax pàccax yeeg yooyu noonu da ngay ree ba tas amuñu canalisation amuñu dara éclairage public bi nekk amul. tamit loolu moo ñu gën a xaw a sonoon benn instant si nawet bi ak matu matu yow bu fi ndox wi taayee nii bu fi fekkaatee nawet bi fan nañ jëm. la ñuy gaare tali bee dafa xat gis nga tali bi ni mu toll woon sunu borom kër yi ci kaw tali bi la ñuy gaare wala ñu wiiri wiiri bu sore waaw ñun daal dañoo bëgg rek ku eggaleel tali ñu dellu ci sunu sag ndox bi temps yi njëkkee ñu 2010 ba tey ñoo ngi dëkk fii fii mbedd mu yaatu la woon suuf si bëri xale yi bari fi daan footballé waaye gis nga ko boobu ba léegi ñu ngi nii ñax yaa ngi nii foos weñ yaa ngi nii lu ne daal moom mi ngi. lii boo leen ko gisalee yéen seen bopp xam ni du dëgg du yoon. surtout rawatina un ministre de la république dëkk suñu biir koñ donc je ne pense que yeneen dëkk yi ni mu mel ay ministre dëkk fa ñu warmaal leen defal leen luy yoon ñun aussi loolu dañ ko war a xeex. suñuy yaay dañuy génn guddi. pour ñu am taxi bu leen indi ba ci biir koñ bi c'est tout à fait un problème lepp ndax luko waral canal bi de ci jouer un rôle primordial parce que auto yi mënatu ñu dugg un deux ci fiñ ñu leen di wàcce foog ñu jéggi té loolu problème la bo xamni vraiment c'est un problème majeur. canal gay gunge projet boobule bokk la gën a sonal askan wi ndax daanaka dara baxu ca ñu fay faral di daanu ba fay loru. li di ay kàddu yu soxna si fekk baax foofee ca cité enseignant. ah sama wujj fii la daanu daaw dam tang mi ngi ni taxaw. fi amul won ay yoon ay bant lañuy tek nit ñi di ci jéggi kenn amul fo jaar ci la doon jéggi daanu sama tank bi dam depuis boobu ba légui mënul fexé ba wër ma ngi faju fu nek mënuma fexé ba wër gis nga tali bi ni deux voix lañ waxan lañ koy def mais benn voix bi sax agagul banen bi mi ngi ni gis nga ni mel dañuy jël ndox bi ci biir canal bi di ko muy dugg ci ci biir cité bi biir cité bi ñi ci biir ñepp amatuñ fuñ jaar seen kër yépp nañ ñun suñu ndox yi amuñu amatuñ fuñ tuur ndox ndax amuñu canal fii lañ daan tuur ndox boo loo tuur ndox mi suuf si da koy naan nga bale mu set ci léegi amatuñ fuñ tuur parce que canal bee tax ndox mi demul fii rek lay ja bant yaa ngi nii amatuñ fuñ jaar oto yi amatuñ fuñ gaare ci kaw tali bi la ñuy gaare suñuy papa ak suñuy yaay ay mag lañ pour ñu jéggi fii c'est tout à fait un problème des ponts yoo xam ni se imaginaire ay bant la yu ñu teg wala dara dàll dafa ratax mën nga sol tarxiis nit damm na fi ba tàyyi di ñu la seen boolu mu ñu kay fees dee la askan wi li ñuy xaar mooy. waa état bi ñoo ci war a jóg defal nu voie bi mu àgg deux voies yi mu àgg defal ñu ay kanaal ndox yi di ci jaar ñu nekk ci jàmm. ah cri de kay vraiment fii daal ñu ngi woo autorité yi nañ ñëw yeggale lii projet bi lii euh, matul sax euh, xam naa dix kilomètres matu ko donc war nañ koo mun a liggéey. vraiment sonu nañ trop nañ ñëw autorité yi Macky Sall ñu koy wo mu ñëw xol suñu projet yi mu wax ci ene xale fi la doon jéggi dafa daan gaay ko do génne té bi bu gaay di liggéey fi day am courant bu courant bi mën na ray xalé yi bu ñu si daanoo ak nag yeeg yooyu noonu tamit nañu jappalé defal ñu suñu tali bi signe signe de faiblesse la parce que tay je me dis que nit ki lépp loy tambali fi ko commencé dafa wara doon lo xamni day euh royu kay lay doon kay lay doon parce que tay li bu pare won refet fépp fu maire taxawati wax euh, Promoville dinañ def ci biir dëkk bi lii canalisation bi lii wala lii population bi dinañ ko gëm mais tey boo demoon ci beneen dëkk nga ne da ngay euh, commencer beneen projet comme lii nii ku si mel ni man demoon dëkk fa dañuy bañ parce que on va euh, dootuñu accepter lii xëy na lii bett nañu mën nañu mënatuñu lu dul dox ci wax ci bu jaree ñu wàcc si tali bi aussi dinañ wàcc si tali bi parce que aussi bokk ci mouvance warul tax nga bañ a wax dëgg li ñuy xeex pour ñun la c'est pour l'ensemble de la population donc je vois mal ñu bañ a terminer quoi parce que buñu ñëwé ñu kaas ko ñu gassal ñu ñaar ñetti fan wala ñeenti fan demat amul sens nañ koy yeggali ngir yalla war a parce que c'est un cri de cœur nak parce que mën nañ def ni nit ñi di def wacc ci tali bi tak brassard rouge xex sanni xeer mais amul sens amul sens je pense que tay ñun on va se déplacer dem toog ak autorités yi nga xamni ñom ñoo yor projet bi wax leen suñu fulla ak fayda que nous sommes des enfants ici de la ville aussi du quartier et li lañ bëgg